sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha Cheikh santal dayab cente yaa gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa Seex Mustafa santal dayob cant yaa fi gën amul ku lay te ka ngaayoo ci Mustafa tëddal nañ nelaw yaa Mustafa ñépp mokk nañ amul kenn ku lay tamit ay ñaan sëriñ Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Mahmadul Bachir mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ Touba kër gi bokk ci ay këram sëriñ Ahmadul Muxtaar mi nekkal ko fii ñu di leen ñaanal ñoom ak njabootu sëriñ Touba gépp suñ boroom yàggal leen fii te mottali seeni naal te ñoo ànd ko ak ñoom sëriñ bi tey jii dafa doon bis boo xam ne dañ cee sopp ci ab jullit dañ cee sopp ci ab jullit mu siyaara ci aji xam nun nag sëriñ bi li nga doon ci nun romb na rek aji xam yaakaar nga ci nun wéeruwaay nga ci nun ab delluwaay nga yit ci nun ku jàqit ci yow rekk lay delsi kon bis bi nun dañ cee bëgg a lare moo di def ci li ci lislaam santaane sopp ko ci waaye itam ñëw teewaat fi sa kanam ngir xam ku teew fi sa kanam te teewa fi ni fi war a teewe la muy jëlee ci teew gi ak la ko borom di defal ci kàttanu sëriñ bi daayira ahbaabul Moustapha nag di kuréel goo xam ne dafa sosu ngir liggéeyal Cheikh Mamadul Moustapha ci njabootam te yéen ñi ngeen nekk ci bopp bi at mu jot nga may leen na leen ko sa seen mag yu baaxee maye woon mooy bu bis bi jotee li seenug jot di xat-xat li ngeen di bari bari ay yitte ngeen may leen waxtu wu gàtt ci seeni waxtu te loolu di di lu rëy ci ñoom sëriñ Cheikh Lo daayira la ñuy jox kàddu bu ñu noppee ñu jox kàddu sëriñ Mbay Bayti mi nga xam ne moo jiitee daayira Ahbabul Moustapha te sos ko suñu noppee ñu jox sëriñ Moustapha Ndiaate ni mu ko baaxoo defee mu yëkkate ay kàddu suñu noppee nag ñu jox sëriñ bi kàddu yu mujj yi mu dénk nu ñaanal nu nu yewiku ba déwén incha allahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bokki julli fi teew yépp sëriñ bi ñoo ma andando yëkkati seen kaddu jox nu ko tan tuut ci lol nuy sakku nga ñaanal nu ba lanu bëggoon nu wax ko nu defé ko nañu ko sëriñ bi soppey cheikh mouhamadul moustapha wala rëy cheikh mouhamadou moustapha ñoo bokk sukk fii sa kanam di beesal sunub siyaar ci bis bu tedd bii di beesal sunub taalibe ci sunu diggante ak cheikh mouhamadul moustapha mën na wax ne taalibe yépp yoon wi yëpp ñoo bokk sukk fi sa kanam ndax ñëpp taalibe Cheikh Mouhamadou Moustapha lañ ndax ku tedd ki bi muy dem ci loxoom la ko tegoon kon ñooñu ñoo bokk sukk fi sa kanam di la siyaar di beesal seenu cofeel suñu digganteeg Cheikh Moustapha di beesal suñu yaakaar ci suñu digganteeg Cheikh Moustapha dina la ci barkeb Cheikh Mouhamadou Moustapha sunu boroom defal la lañ benn boroom xam-xam doon ñaanal kilifa ga naan ko yal na la sunu boroom defal téeméeri at yu tofal ànd ak bërit dem yal na la ko sunu boroom defal amiin lu tofal lu ne xaj na ca kon noonu la koy ñaanal ci barki Cheikh Moustapha di la siyaar di rafet njortit ci siyaare bii ndax sunu boroom defal nañu ci mu tombeek waxtu wa nga xam ne e, Cheikh Mouhamadul Bachir moo waxoon te kama ko nettali mooy Serigne Mor Kane nekkoon chef de village su Daaru Minam moo ma ko nettali ci làmmiñu boppam ne ma Serigne Bachiroo ko wax ci làmmiñu boppam ne ko serigne Touba neena ñetti bis yi ñoo gën ci siyaare ca waxtu ya waxtu yi suñu borom nak tambe na ca bis bobé ak ci waxtu wé moy alxamis ginnaaw takkusaan mooy fi nu toll aljuma suba tel gaaw yor yor lolou sëñ morkan momako net li ci lamiñu bopam na sëñ Basiiru moko wax ne sëriñ Touba neena moy bis yi gën ci kon alhamdullilah rabbil alamin bi mu tombek bi ñu tombeek waxtu woowa ñuy mënunoo wax daaneel nag te tudd nu jenn jàmbaar joo xam ne yàggu rekk la dëddu moo doon koo xam ne da doon ku jàmbaare ci ahbabul Mustafa di ko jàmbaare ci diiwaanul muridina doonoon koo xam ne ci lépp lu baax ci Touba moo xam ndox mi moo xam tubaa ca kanam foo ko fekk mi ngi laxasaay di liggéey sëñ tubaa sunu borom jëlee fi bu yàggut muy sëriñ Ahmadou Cissé doonoon murid sadiq sëriñ bi ñoo la koy seeral nekk doonoon na jëmm joo xam ne mel na moom yombul kon nag noo ngi sàkk mbooloo mépp ñaanal ko nuy sàkku ñi nga xam ne nekkoon nañ ci def sunu boroom def ñu jiitu sunu boroom defal leen yërmande ci barkeeb Cheikh Mouhamadou Moustapha Muxtaar fadilatu Cheikh Ahmadul Muxtaar assalaamu aleykum ngi lay nuyu ci kàddu mbolo mi fi tew bi nu len woyé ci mbir ñu daj seen xol bok ci loolu ñu wuy ci moy hubbul mustafa ci len len wo de moy sop Cheikh mustafa mbolam ñu daj seen xol daj ci hubbul mustafa te ku tedd ki waxoon ne diini ya hubbul lahi والرسول وحب حزبه ونيتسولي سولي دل وحن الدين يحب الله والمشفع مستغنيا بسره عن مدفع دل وحن الدين يحب الله والرسول صلى عليه قائد لي سولي لب دي محبته من غرقت في بحر محبة الجليل وبحر حب حبده الحب الخليل ki nu seey ci moom ki nu yaakaar ki nu nekk ci biiram fii la ne nee na loolu foofu la ne moom la ñuy xeeñtu moom sëñ Tuubaa Xaadimul Mustafa borom dëkk bii borom kër gii moom nag nee na foofu fii la ne ku ko man di seet nee na lab naa ci géej gi sopp yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne sama diine mooy sopp yàlla ak yonente bi ak gaa yu baax yi sopp yàlla ak yonente bi mu doy ma walis ay ngànnaay ak i fayantoo sopp yàlla ak yonente bi mu may ma lu ma amoon lu ma bëggoon loolu nee na moo ma ko may wan niltu suul yi nu teew nag fi bàkkam bii nga xam moo ko rëddal boppam muy daarul xudduusi tuddi ko tur wu rëy mu yor rëyaayu jëmm joojee dëkk fi lu yàgg denc fi denc yu yër nu teew fi di ko xeñtu moom sunu sëriñ boobu yi Cheikhul Khadim moomeelam ak i jëfam ak i waxam tasaare ko ci ay lu mel ne conférence ak i màggal ak i cant boobu yii xewagul dara ci yii xewagul bu ko defee nag amal benn bis mooy bii di ko ci sant di ko ci jaar loolu moo ne ci statut bi sëñ Aliou Mbacke si yoon mii nii ma tiim loolu nag juguñ ca ba tey génnuñ ko fenn lettre sëñ Aliou ngi nii di fedd li dina joxaat fedd nee na eh sëñ Mbàkke wa damaa bëgg liggéey jëm kanam kat waaye bëgg mu dellu gannaaw mu mu deltu gannaaw na jëm kanam daa koy bind signé lettre baa ngi nii ma tiim mu soññunu xëccoowunu dara dara dara dara daje képp ngir ngoon gi nu daje sargal la siyaar la jeex na daayira bi jeex li ci lépp diiwaan bi nga xam ne moo lëkkalee daayira kër gi waaye moom képp ku jéblu ci kër mu Moustapha moo la lëkkale yooyee ñoo yor loola te ñu koy doxal muy màggal gi maa ngi moo gën sëñ bi illa bi loolu amagul sasoo wan nan fi daaray kaamil ji ba tabax ko terrasse ko terrasse baax garage bii nu tabax ko wce muy war na yee ñu tabax ko si bii ci ko sa ondiaay nu tabax ko doon ko def ndànk-ndànk di ko booleeg ziyaare bi ca yooyu jamono di ko woote di ko booleeg di jëf ci màggal bi organisation daanaka joxoon nañu ko suñuy loxo ñu ci liggéey di fanaanee exposé fii ak di jàng jàngkat yu bari fii lañ ci ñun sëñ Bolle Mbaye sëñ Xaadim bi ñoom ñëpp ak sëñ Ibrahima Seck fi noonu lañ xewee fi ñun la njëkk a am lay jàng ba ne pël loolu lépp barkeb xubbul Moustapha moo nu ko may ndax xam na li ñu téye sëñ Tuubaa nee na kuñ ko jox nañ ko téye ndax dëgër na te doy na muy xubbul moom la jox nag danañ ko téye di sàkku ñëpp xam lan mooy xubbul Moustapha rek mooy mi ngi nii fii la jëm si lii rek ko tax a jóg képp du la leen kon bi nañ koy gën di fonk muy bisu siyaare bii xëccoowuñu leneen jëmuñu feneen dajaluñu mbooloo amuñu mbooloo amuñu daal amul kenn lii dong daal mënu tax a jóg bis bi àddina jëpp ñëw nu sargal sëñ bi siyaare delluwaat ci kër ya illa bi loolu loolee amee ci jabaawoon nga xam ne booba yii amagut daayira yu bari sosoogut daayira kaamil jëm sosoon nag tabaxoon ko rab moom day leen ñaanaan ndigalul yee salaat ko daara kaamil jooju nag jot nañ ndigalul yee salaat ko woon nañ ci ñëpp mi ngi noonu ci biir barkeel na lool te alxuraan lañ fay jàng subaak ngoon mës sa génn kuréel yi nga xam ne nag ñoom lañ bëgg a présenté sëñ Bass daanaka wax na li ci ëpp solo mooy bu buñ nee parce que xalaat lii mooy diiwaanul muriidiina jotaay bi loolu lay tudd loolu lay fekki asa euh, diwaan muridina ndaje muridina mi ngi nii lii mooy diiwaanul muridina ndaje muridina loolu lay tekki de fii xobbi xayril mursalina ci sopp yonent bi ak liggéeyal ko kon ñoo ngi ndokkeel ñëpp te di leen gërëm te di leen sant ci turu sëñ bi ak ndigalam di ñaan ci barkeb Xaadimal Mustafaa ak barke weeru tedd wi ak ki tax ñu daje mu yàggal fi sëriñ bi loolu ci sunu kanam te mu ànd ko wér gannaaw bu loolu wee noo ngi am cant bu jógee yi sëriñ bi jëm ci ab kuréel boo xam ne dañ fay nekkoon di ko liggéeyal te kuréel booba sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ yi noonu ca bopp te ba yàgg mu xamle ak tële ci yaramam ak ñàkk sawar mu tax mu teggi liggéey boobee delloosi ko te ña ko yoroon sëriñ bi wax ne diir bi mu ne ci loxoom lam ci jëf ci luy bàyyee ngërëm ak cant war naa tax ñu sant ko ci kanam mbooloom sëriñ bi ne mi ngi seeral ñëpp ak cantam ci moom ci diir bi mu yor liggéey boobu te ànd kook ñi mu ko war a àndal tañ def te lañ ci war a def ci la ak fayda ak defal ko Cheikh Moustapha kon su demee ba am lu ko gaar ba tax mënutu ko yor sëñ bi nee na du man lu ñaan loola sama borom teggil ko ko te sant ko te gërëm ko moom ñama àndaloon la ca dolli ko moo di ñama àndaloon liggéeyal sëñ bi rek leen tax a jóg mu àndoon ak ñoom ñu takku seen kanam su demee ba loola mu am ca gàllankoor sëriñ bi nee na ña ko àndoon moom mi ngi leen di jox ndigal ñu dajalewaat seen bopp te soññuwaat te tënkuwaat ci luy tax loola dox mi ngi koy ñaan mi ngi leen koy sant te di gërëm tey gërëm mbooloo mi te ñaan daje bi ñu yàgg ko def ci dara yi Cheikh Mouhamadoul Moustapha farlu it ci li nu dajale ndax ki nu dajale fii Sëriñ tubaa ko tànn def ko ab taaw ngir tànn mu ay jikkoom ak jomam ak ngorom ak fitam loolu tax mu tànn ko teg ko ci sunu kanam mu wuutu ko gannaaw bu Sëriñ Tuubaa génnee àdduna mooy ki ko wuutu ci jataay ba mu toogoon daa wax nit ñi ne leen bu leen ma xool ci ki ma fi wuutu xool leen ma fi ci ñi ma fi neel ba de ba xam da ngeen gis keneen mu def waaye ku ne xam na ne ku ko xool keneen ci ku dul xaadiru Moustapha da nga xam ne sunu waa ji jàmbaar la man na liñ ko doon daya jërëjëfe moom ñi mu fi bàyyi <coughs> lam leen bàyyi woon sàmm nañ ko ba mu agsi ci ay loxoom ak si sunuy loxo ñooñu ko doon sàmm nag ci ngor ak jom ak dundal jëfam ak wéyal ndigalam moo tax ñu doon ko def kon su agsee ci noonu sëriñ bi ni sunu kanam leen war a def mooy lépp lu ñuy soññ ba la ñooñu yoon def ñu mën a def lu ko raw ñu xam ne bay yu fi ñu sàggan bay yu fi ñu ko wor loolu daal su amee leen bëgg lépp am na soxna si nga xam ne mook sëriñ bi nga yem ci ñun ab cër muy soxna Faati Marème Lo soxna Faati Marème Lo dafa wax ne mu ngi yónnee ak can tàmbalee ko sëñ Ahmadu mii nekk jawrin kër gi ba ci ka ci mujj ngir lu mu am lu ne jëmmi ma Moussa tax mu am kon Cheikh Moussa rek ko itteel ku itteel ku Cheikh Moussa itteel nag itteel nga ko te xam ne ne sëñ Ahmadu Moussa mi sëñ Moussa rek ko itteel kon nag mi mi ngi jéeme ak cant ci moom di ko jàllale ci mbooloo mi ak képp ku mbokkal kër gi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi yëkkati sama kàddu ci ndigalul sunu kilifa cheikh ahmadul moxtar mbakke mi fi wuutu cheikh moustapha al karim ak mboolem njabootu cheikh mohamadul moustapha gi sunu taxawaay nag mooy laa yasbiquunahu bil xawl wa hum bi amrihi yamaluun kon sëriñ bi mi ngi leen di nuyu yéen mbokk yi fi teew yépp doomi boppam yi njabootu cheikh mouhamadul moustapha gépp di nuyu bu baax ahbaabal moustapha di leen xamal ni haada al yowm yowmun mubaarak wa lana fihi shay'un fihi lan nusharik bis bu màgg ngi nii bis boo xam ni njabootu Cheikh Moustapha gépp dañoo daje di siyaare Cheikh Mouhamadul Moustapha Daaru Xuddoos amul bis bu ëpp boobu bis boobu sëriñ bi nee na bis bu rëy la ci moom lii bokk na ci responsabilité mu doon dox ci kër gu nekk kenn ku nekk mu saafoo tey yow kenn ku nekk mu woo la xëcc la ci bis bi bu ngeen amee taw feexe dajaleen ko seen bopp daje njabootu Cheikh Moustapha gépp takku nekk wenn say kon yéen da ngeen ko noppal ndax lii ngeen def moom la waroon sëriñ bi mi ngi sant ñëpp di sant bu baax itam soxna maam Faati Mbakke ñu gën koo xam ci soxna maam Faati Mareema Lo ci taxawaayam ci bis bi taxawaayam ci kër gi yi ak yittewoo jëmmi sëriñ bii ak liggéeyu Cheikh Mamadou Moustapha bi waxtu wu nag mu ci tàbbal xelam di ci tàbbal aw ñaqam di ci tàbbal waxtoom di ci tàbbal ay xalaatam ngir lu jëmale kër gi kanam lu benn la kër gi ak lu gën a dëgëral bés bi lu mu ci def moom soxna maam faati sëñ bi nee na xam na ni xeeb na ko moom ca boppam waaye moom sëñ bi de lu rëy ci moom la ndax jëf ju bàyyi ko ci maam faati jëm ci moom mii jëm ci Cheikh Moustapha ànd ko njabootu Cheikh Moustapha moom ma ko jëf day ndax sëñ Tuubaa moom loo ko jëfal xeeb ko waaye moom mii mu ko jaarale muy sëriñ Ahmadul Maxtaar xeebul jëf jooju réylu na ko rafetlu na ko xolam sedd na ci bu baax a baax mi ngi ñaan li Cheikh Moustapha di séddale yàlla bu ko ci kenn ëppale mi ngi sant itam ñi mu bokkal Cheikh Moustapha ñëpp bàyyiwul kenn njaboot Cheikh Moustapha gépp lay sant mi ngi leen di xamal ni la tàmbalee ca Cheikh Ahmadou Mbacké ma jëkk a feeñ ci sëñ Mouhamadul Moustapha ba ci sët bii mujj feeñ ci sëñ Momadou Moustapha de ñoom ñëpp bu ñu dajee ñooy ñoo am sëñ Mouhamadul Moustapha yéen yéenay sëñ Mouhamadul Moustapha sëriñ Ahmadul Maxtaar cër boobu yi la leen jox bët boobu yi la leen di xool Cheikh Moustapha la leen uufal na xam na ni yéenay Cheikh Moustapha yéenay njabootu Cheikh Moustapha te moom amul lu may Cheikh Moustapha liggéey yulul kuru Cheikh Moustapha xoolul ku may Cheikh Moustapha ndax Cheikh Moustapha mooy référence am Cheikh Moustapha mooy référence u képp ku sukk jébbalu ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimul Moustapha bis bii ci suñ kanam nag sëriñ bi nee na yitteem yépp guddi ak moom la nangeen ko def seen i yitte muy bisub Seex Ahmadou Bamba bii lépp lu jag ci àdduna jag ëllëg ci bis bii la jage bu sëriñ bi desoon ci loxol tubaab bi lu bari dana baatin bi moom dana sotti waaye li lii nu am ci saahir moom wóor na ne desu ko am li Seex Ahmadou Bamba waxoon Cheikh Moustapha mu indi ko fii loolu su esegoon lii ñu am i tey bi loola it du am kon euh, bis bii di ñëw muy bisub Seex Ahmadou Bamba boobu lu sotti lu ne ci la sottee bis la boo xamante ni Cheikh Moustapha daana wax ni ku fi jant sowe bët seta la fi nga fanaana fi lu neex sunu borom boo xëyee mel nga ni bis ba nga juddoo woon ci set ci ay bakkaar kenn ku nekk xam na ni amul benn liir buy gane àdduna ëndaale bakkaar képp ku fanaan Touba bisu asruuna muharram guddi layla guddi mu muharram te fanaana fi li neex sëriñ bi neex Cheikh Moustapha bu ba setee waatal ni yaa ngi liir buy soog a judd yéene yam ki set ciy bàkkaar loolu nag bis bu mel noonu bu nekkee ci sun kanam sëriñ bii fonk ko nun euh, ñëpp muy sunu kilifa bëggam gépp di lu jagal bés bi bëggam gépp di lu bégal Cheikh Moustapha bëgg bëggam gépp di téyal sëriñ Modou Moustapha la ko sëñ Touba dénkoon ba mu andi ko jëme ko kanam gën koo rafetal la tàmbalee ci Cheikh Ahmadou Mbacké di dox ba ci moom lañ ca doon jëf lépp su sañan jëfaale leen ñoom ñëpp ba jëf jëfi boppam te loolu yéen ñii yéen di ay jumtukaayam yi muy àndal yi muy àndal ci bis boobu ngir liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba. sëñ bi mi ngi sant ñëpp di baal ñëpp ak di balu ñëpp ak di leen di leen di leen di leen xamal ni lii ngeen def rëy na ci moom sedd na xolam yàlla na sëñ Tuubaa wuutu ko ci yéen seral seeni xol yàlla na seex Moustapha wuutu ko ci yéen seral seeni xol wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu. seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ nañ ko Moustapha sigil te weytoo madru yi nañ ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek ka farjekki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate